man namatuma hôtel man hôtel bi dàq ci hôtel ci àdduna xale baa ngi nii ah lii la ay waay lii ba jàmm la waaye la na ni yow. barki kon Sankara. Sankara li mu doon. Ah? Sankara lii la. ñaa la waxal yow xam nga am nga luñ la waxal yow. Ah. <laughs> xam nga am nga coow. yow luñ la ah. moo coow rek comme ñun ñoo ñaari seen affaire yi.